xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey Lat Joor Ngoone Latiir Jóob Lat Joor a nga juddoo kër Amadou Yàlla ca Kajoor ana kuy baayam bërgët saa xewar soxna Mbay Jóob ana kuy ndeyam Ngoone Latir Fall Lat Joor ba muy gone la doonoon ko am jom Lat Joor ba muy gone la songoon xeex booba Lat Joor dugagul néegu góor waaye dameel ma jooje déggeen Kodd Fall mi nga xam ne góor gouverneur Ndar Faidherbe moo ko fa tegoon Lat Joor musta nëbb ne nanguwut mu ànd ak tubaab bi di noot askan wi nanguwut muy toog te du ko fi jëlee Lat Joor nag jàkkaarloo boobu mu jàkkaarloo amoon na ñu ko doon jàppale muy néegu ndeyam di sëriñ kokki yële nga xam ne ñoo féete woon ca kokki ca noona gàngoor gi nga xam ne moom la àndal mu jël Demba War Sàll jarbaatam jiital ko kenn fàttewut keroog ba muy dajeeg gàngooroog ma jooja déggoon koddu 1861 ca kokki Lat Joor am ca ndam loo xam ne kenn dootu ko fàtte Lat Joor booba anak koy jàppale xanaa jaamburu kajoor yi booba ana koy jàppale xanaa néegu ndeyu géej yi nga xam ne ca mbul lañ leen fal ñan ñoo ko fekkee conseil gouvernement ak juróom-ñaari néeg yi nga xam ne ñooy néeg yi war a falu Kayoor ca 1862 ca weeru juillet Lat Joor booba ñaata at daanaka ñaar fukki at la moom rek mooy damel boo xam ne santut Fall damel yëpp Fall lañ sant moom Jóob ma jooju ngeen koddu nag musta nangu loolu mu daal di dem wuti ngànnaayam ànd ak tubaab ne moom nguuram la bëgg a nanguwaat waaye du fàtte ngol-ngol de keroog tubaab yee ñaata lan téeméer ak ñeent fukk ñaataa ca daanu téeméer ak ñett kenn du fàtte keroog Lat Joor ba mu dajeeg ñoom lu ko dal ci seen kaw tubaab ya dellu gannaaw mu dal ci seen kaw mexe tubaab ya daw lépp nga am ci mennum at 1883. fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 1864 fële ca Looro damel bi songoo ak ñoom ñu sonal ko mu dellu gannaaw ma jooja dégeen koddu daal di ñëw toogaat ci jal bi bi mu toogaatee ci jal bi nag Lat Joor daal di génn ne moom du toog di seetaan tubaab bi muy def lu ko neex Kajoor mu dem jaxaaw buur Sine Kumba Ndoofeen dalal ko ñu waxtaan waaye juboowunu Lat Joor wëlbatiku wuti Saalum almaami Maba Jaxu Ba mu mag ma booba moom moom riib moom moom sabax moom moom sànjal daal di koy dalal ni ñuy dalalee buur daal di jël Lat Joor nag ne ko sa ndey Ngoone Latiir damaa lebaloon bor boo xam ne fay ko ko laa doon xaar te ci doomam laa ko koy fayee jël Lat Joor ne ko jiiteel sama jàmbaar yi ma ànd moom nag di ko jàngal xeex di ko settalil ab jàng ak xeexam di ko jàngalaat nu ñuy xeexee Lat Joor daa di wane lim man daa di wane lim man ca Paoskoto moom lañ tuddee xeexu Paate Badiante 1865 keroog tubaab yi duñ fàtte 1867 ca Kaolack na leen Lat Joor dalee seen koo ànd ak Maba Jaxu tubaab yi duñu fàtte ne keroog ndam lu rëy la nit ku ñuul am ci nit ku weex almaami ak Lat Joor dalit ci kaw Buur Siin mi nga xam ne buggul woon a doon jullit waaye xeex ba nu xeex sa somb ca la Jaxu ba ñàkkee bakkanam 18 juillet 1867 Lat Joor daal di ñibbi Kajoor daal di ànd ak sëriñ bi ñu tuddee Ahmadou Cheikhou Dem ñu song tubaab yi spay nga xam ne dañoo bëggoon a wër mexe dal ci seen kaw delloo leen gannaaw ñetti fani juillet 1869 tubaab yi ginnaaw bi leen Lat Joor dàqee ca mexe ñu toog ay weer ñu songaat ko ca mexe ak Louga Lat Joor dàqaat leen ak gàngooram ndax booba nag France métti na ci moom ndax fa mu nekk ca Paris allemand yi wër nañ ko 1870 tubaab yi bëgg a jàmm signé ak Lat Joor ne nan am jàmm ne ko kon nangu nañ na yaay dammel 1871 Lat Joor daa di nag song bawol daa di cay teg tànkam bu ngeen déggee dammel teeñ mooy ki yilif bawol yilif kajoor France daa di ko kaay ñu jàmmoo Amadou Cheikhou nag moom bañ ne Lat boo jàmmoo it man du ma jàmmoo janvier 1875 soldaali Lat Joor yi daje ak yooyu sëriñ bi xeex bu metti sëriñ bi keroog ca la ñàkk bakkanam 1879 nag tubaab yi daal ne ginnaaw fiilu téléphone yi bi ñu ko indee muy télégraphe dañuy tabax autorail yoon wum jaar Lat Joor xam ne raay bii moo war a lëkkale dakaar ak Ndar war xotti biir kajoor dana doon lu ko tiis 1881 Lat Joor ragal na tubaab yi dañuy songu ngir nangu kajoor mu ne kenn du fi tegraay bi donte àndoon naa ci àndatuma ci ah xeex ba daal di dooraat tubaab yi mer nag nga xam ne 16 janvier 1883 ñu jël Samba Yaaye Fall ne ko léegi nag par force yaay dammeelu kajoor te kat moom moog Lat Joor doom yëkk ak doom wëllu la Samba Yaaya Fall kay ñëpp xam nañ ne Linguère Debba Sukka ko jur te Linguère Debba Sukka moom mooy Ngoone Latiir rek ndax lan bokk ci meen ak geño Samba Yaaya Fall nag biñ ko fale dameelu Kayoor ñi ngi ko tuddee Amari Ngoone Fall ñaareel bi Lat Joor dem wuti doole ginnaaw bi mu demee Rip Saalum ak Bawol amul lim bëgg mu rëppatal wuti Jolof fekk nag Alburi Njaay di ko xaar ak Abdou Bokar Kane bu Fuuta almaami bu mag ba fekk buuru Trasa Eli Njëmbat di ko xaar jamono booba tubaab bi gis nañ ne Amari Ngoone Fall 2000 ñu fi teg amul doole ñu daal di jël Samba Laobé Fall jarbaatu Lat Joor fal ko Damel 29 août waaye ban ca tegee ñaari at 16 juillet 1885 ca lañ ubbi raay bi daal di koy daloo. ah damel bu bees bi nag ne Alburi Njaay da jàppale Lat Joor sa nijaay mu daal di ànd ak doomu bàyyiw buur ba Jolof di sàmbalaw ba penda ñu daje ca Gille 6 juin 1886 Alburi am ndam ci seen kaw sàmbalaw ba faal tubaab yi gëmatunu ko mu daal di xuloog ñoom sàmbalaw ba faal keroog tubaab yi nga xam ne la àndaloon di xeex ñoo ko dóor balu fetal 6 octobre 1886 bakkanam wadd ca Tiwaawoon ginnaaw bi ñu toogee nag amatuñu dammel ah ñu ne kon dammel dootu fi falu tubaab bi daal di jël kajoor def ko juróom benn néeg kenn ku ne mu teg fa ko neex Lat Joor mi nga xam ne mi ngi woon Bawol loola naqari ko lool bi mu ko naqaree Lat Joor daal di leen di song fu mu leen songee ca déqale ana num leen songee xam ne ñoo ko ëppi ngànnaay ëmp koy jàmbaar waaye mu ne ngor ak deretam mayu ko muy seetaan ñuy nappaaje Kajoor déqale 27 octobre 1886 Lat Joor dajeeg tubaab bi deretam tuur mu ne dañ may rey waaye kenn du ma toroxal ki mooy Lat Joor Ngoone Latiir Jóob dammeel bi njëkk sant Jóob ki mooy Lat Joor mi jàkkaarloo woon ak tubaab bi xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu fay Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut